Euh, ñu ngi ñu voilà ñu ngi ñu ngi tàmbalee ci di sant euh, suñu mbokk jullit yëpp tarixa yëpp di sant euh, mbokku taalibe yëpp sang yi di sant diaspora islam bi yëpp umma islamique bi yëpp màggal gi sëñ bi dafa am yéene ñëw fekk si jullit yi nga xam ne dañu am yéene santale ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul boroomam ci bis bi nga xam ni mooy ñaar mooy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ginnaaw bi ko ku tedd ki diglee mu am yéene rek képp koo xam ne dafa nekk ci diwaanu cees te jotewul ci mën a dem ñoom rek la ñëw wéttali si leen fas yéene ànd ak ñoom ñu ñu sant yàlla euh, matale ko ndigal li ñu jot ci ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul. ginnaaw bi nga tànnee Thiès tey ji ak est-ce que am nga tuuti message bi euh, ko délivrer jeunesse euh, waaw waaw lu njëkk lii mooy mooy message euh, changement yaakaar naa ni du ci mën a ñàkk xam nga wax naa la léegi ne la sëriñ bi macha allah suñu borom dafa dogal nitu Thiès dañu ko bëgg lool dañu am ci moom cofeel lool nit ñi amuñu ci moom sago ba tax na man la ren changement faaw ala kulli xaalin dina am ndax it ku xool lii xam ni lu bees tàq la te it euh, lu bees moom saa yu xewee rek ala kulli xaalin faaw ñu gis ay changement xëy na euh, weneen fànn mii li tax euh, yaakaar naa mooy sa ñaareelu laaj bi mooy message bi kooku li ñuy wolof yi di faral di wax nii paaka kenn du ko jiitu ci mbaram te mi ngi leen di mi ngi leen di jox dox daje ci bisu màggal gi nga xam ne buñ nee suba la màggal gi ci arjuma gi ci lay nangu ziyaar yi ci kër sëñ Abdoulaye Yakhine léegi nag ci bisu màggal gi dina am message yu am solo am solo am solo am solo yu mu leeral ci fànn yëpp yëpp yëpp nag kon dañuy jox journaliste yi ñu ne ñoom dox ndaje ba bés boobu incha allah ci ci kàddu généralu Bamba.